jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéenay bàyyi xel seen bii di Fekke TV ñi ngi amaat mbégte bu baax a baax ak contentement di jàkkaarloowaat ak yéen rawatina tey ñi ngi koy defee ñi ngi fii ni ci làmb yaa leen su ma leen waxee nag tey làmb laa leen andil ndax yéen a ngi fàttaliku soowu ndongoloo bi nga xam ne moom la doon wax naan bu dimanche masaana jot Papa Cissé Souleymane Balde am na ñi ngi ci wet ga nee leen moom laa leen andil tey grand am na ñu ngi laa xam ne mooy diskeneeru làmb am na ñu ngi ko xam xam ko ci burfaale am na ñu ngi ko xam xam ko mu ànd nag Mouhamed tey ma andil leen ñu war a waxtaane làmb war a waxtaane Pikine war a waxtaane ci combat espoir yi nga xam ne moom moo am Pikine ndax mbokk yi yéen a ngi fàttaliku le premier janvier ñu ngi ci jëm ci diggante ki nga xam ne moom moo di Boy Niang ak Balla Gaye waaye yemuñu foofu Ama Baldé am na combat ak ki nga xam ne moom moo di Gris Bordeaux dañuy dugg ak moom xuus ak moom ci waxtaan waxtaan ak moom ci làmb grand am di ñu ngi nuyu di la ziar waaw maa ngi leen di fay di kontaan si seet si bi ngeen ma seet parce que làmb nii rek la tey ji ñu ñi si daan yëngu war nañ ci mën a am sañ-sañu yokku defar si làmb parce que nag làmb moo toll étape boo xam ne nii tey war nañ ko mën a waxtaane ñu ñu xool li si rafet ñu defar ko liy yàq ñu dindi ko sant naa leen gërëm naa leen bi ngeen ñëwee seet ñu parce que nit si lim xam rek la mën a wax comme ñun yàlla defoon na ñu doon ay mbër compétir si làmb ba ndog-ndog am ñu arrêté suñ carrière waaye am na lu ñu xam si làmb laaj baat ak tontu la loo ma laaj ma tontu la. su ma laajee mooy grand Amdy Gningue ak fan la juddoo grand Amdy Gningue kan la. waaw grand Amdy Gningue mi ngi juddoo Faas koñ bi Moustapha Gueye juddoo fa laa juddoo Faas laa juddoo. fa laa fowe mais dama ñëw suma papa dëkk si Pikine ma daal dëkk pikin bi may am ay huit ans ma ñëw pikin bi ma ñëwee pikin nag su may ñi jaay daan yëngu si Fass ku mel ni Aliou ñing président bul faale ay Demba ñu ngi Adama jaañ ay Fass man lañ woon bi ñëwee nag yàlla def nekk. tey sa nekk si koñ bi bëgg làmb ñu ànd ak moom loolu gën a yokk sama amuru làmb ba ñu fi créé fi écrit yàlla suturaal ñu nag parce que bi ñuy créé écrit bu njëkk dëkk moo daan daam écrit mais quartier daawul am écrit écrit Pikine moo amoon mais bu ñëwee ba ne écrit bul faale rek daal koy def quartier naataange ñu jékki-jékki ba yàlla dimbale ñu ñu dema dema dem ba mu doon écrit bu réew mépp xam loolu sant yàlla la. lan moo indi créer Bul Falé biir Pikine. waaw créer Bul Falé biir Pikine li ko indi mooy bu njëkk ba dañu woon nañ ba làmb dafa saturé parce que équipe Pikine kese moo fi nekkoon bari woon ay champion ku mel ni Mansour Diop ku mel ni Balla Bèye 1 Balla Bèye 2 Papa Cissé Ndiaga Diop Souleymane Balde Papa Balde ak benn mbër bu ñu doon wax. nu mu tudd bëri woon na ay champion yu fa nekkoon bëri woon na ay champion yu fa nekkoon géej lañ daan daje di bëre di bëre mais suñ daan bëre champion yi buñ dajaloo ni bari nii boo chaque jour boo ñëwee géej kenn du bu ngoon jotee da ngay bëgg a ñëw géej biñ dikkee nag comme ñun amuñu woon magul làmb biñ ñëwee yàlla def mënuñu percer Pikine quoi parce que boobu mbër yi bëri nañ Pikine si lañ daal di ber suñu jotaay nag gëm yàlla daadi nag créé na dañoo war a bëri doon ay mbër mu metti lool mu metti lool ñu am nag ay grand yoo xam ñooñu si jàppale ku mel ni Aline Ngingue ku mel ni Adama Diagne ku mel ni Atta ku mel ni Mbaye Sylla ñooñu daal ñuy encadré nag gëmloo ñu ne dañoo war a doon champion ñu daal di koy gëm nag ba yàlla dogal si. bu ngeen di créer Bul boobu ana Tyson. boobu Tyson moo tax ñu créer Bul Fallé parce que ñun làmb man aw ma maam ju bëree Tyson amul maam ju bëree mais dafa am benn ménagère boo xam moo nekkoon Pikine ku ñuy wax al Demba Sey su ma juumul 91 wala 92 la de ñu koy defal. anniversaire am roog mbalax mbër bu faas ñëw mais su ñëwee mbër Pikine yi dañuy ànd ak moom dañuy ñëkk di ko dëkk léegi nag ñun ñun ñëw na ko ñëwal ñu doon sa poulain su ñëwee ñu ànd ak moom lii daal moo ñu dugal si amuru làmb ba ñu doon ay mbër waaw. mais bi ngeen créé Bul fan la Tyson soqi ko ak premier combat fan la ko Tyson bëree. non premier combat fii la ko bëree Mor moo ko tëgg. Mor Faram moo ko tëgg. Pikine la ko bëree. Pikine Tyson combat yëpp Pikine la ko bëree. mais bul faale écrit bul faale la ko bëree wala. ñun mosuñu ñun ñu fi nekk ñëpp. boobu da ngeen a créé. écrit bul faale lañ créé. ñëw ñëpp si licence bul faale lañ bëree. su ma nee la après bi ñu demee ba deux mille. wala quatre-vingt-dix-huit si lañ soog a am ay licenciés. yu changé yu ñëw bul faale. ku mel ni Eumeu ku mel ni Eumeu Sène Junior. ñu commencé ak ndooy mbër yoo xam jotoon nañu am licence foofu daal di ñëw fii mais bu dul loolu moom ñun ñu fi nekk ñëpp man Coly Faye Adio Dia Tyson 2 ñun ñëpp bul faale licence bul faale lañ compétiré waaw. léegi bi nga ñëwee yow bul faale ñaata combat nga bëri ñaata combat nga bëri ci sa ci làmb jooy saison bi sa carrière làmb yëpp. sama carrière làmb maa ngi bëree suma juumul fin deux mille dix huit laa laa njëkk a bëre sama combat sama dernier combat maa ko bëree 26 décembre 2003 juróomi combat laa bëree juróomi combat yi maa ngi bëree ñetti combat yu ndaw ak ñaari combat yu mag dégg nga bëre naa trois combat declancement après ma bëree beneen grand combat bëree waat beneen grand combat parce que suma ma jumul bëree naa Tafa Gueye deux grand combat bëree naa Kati deux grand combat mais. su ma juumul sama combat déclenchement man la woon ak alam daar waaw alam bu waalo moom laa bëreel mais grand dama gis bi Siteu daane Papa ci bu sulu ñu ne am na ñëng moo ko daqoon lan moo taxoon ñu doon wax loolu waaw c'est-à-dire xam nga làmb nag ñun suñu làmb ak léegi loolu moo wuute nga bu njëkk ba làmb mbër mën nga ko bañ a gis sax mu summeeku nga xam mbër mi lan mooy mëninam parce que cër doomu aadama at bu doonee athlète fooram day nekk si biir yaramam te bari na léegi boo yi di compétir xamatuñ ko parce que xam ne tax xamuñ ko mooy bëriwuñ làmb parce que nga ne si benn écrit trente mbër ne fa chaque jour ngay bëri mbër yooyu ku nekk da nga xam mën nam ba boo dee bëri moom da ngay sóoraale mën nam bokkul ak ñun ñi nga xam dañ daan jóge fii bëri ji ba mbuur soo demee mbuur fekk fa gaynde bu mbuur nga dem tëngeej fekk fa mbëri tëngeej yi tey jii Tëngéej amoon na mbër moo xam ne nii kenn mënu ko woon daan Cheikh bu jokkul nga dem waalo roon bu waalo nga dem parcelle fekk fa Mathieu Parara fekk fa Yaaram Gueye fekk fa Ousa Pikine man ne fi Pouy de ne fi dégg nga Jules Balde ne fi mbër yëpp ne fi Coly Faye Eumeu Sène nga dem nga dem Caaroy gaar fekk fa ay ñoom dun xaaf ñun ñun nga dem Caaroy Ousmane Diop Ray Zigar magu ma Mandione ñoo ñëpp ne ñu ñuy daje di bëre loolu mooy tax boo demee ba géew da ngay dem ñeme géew làmb parce que da ngay léegi da ngay gis mbër moo xam ne nii dana entraîner musculation ba taxaw entraîner physique ba taxaw mais bopp bi du taxaw parce que posé wul posé wul mu dem làmb ja duñ ko laal sax mu daanu parce que boobu u géew làmb mbappat moo la daan miin loo géewu làmb ba nga ñeme géew ba boo ñëwee si làmb rek da ngay xam ne dangay ngay posé mais léegi booy ko si yóbbu mën nga ko entraîné ba mu taxaw mais xoolal bopp mooy bëre te boppam du fa ne gis naa ko si booy mbëri léegi yi. mais mais mais busulu bi da ci doon daan ay mbër spectacle wala ndax damay dégg ñoom daan nga fi mbapat busulu ma xam ma waaw loolu moom. Mm-hmm. sama premier combat. 18 mm-hmm. secondes laa bëree ak mbër mu ñuy wax. Badasum écrit Mermoz la nekkoon. dix-huit combats lañ bëree de sama troisième combat man ak euh, alamdar su ma jumul vingt six secondes lañ bëree mooy dama ko busulu combat yooyu busulu mais busulu mbapat laa ëpp lu ma ko daan liggéeyee mbapat laa daan ëpp parce que mbapat mën naa ñëw mbapat daanaka su ma dee bëre su ma fa daanee dix combat daanaka sedd yi wala wit yëpp busulu lay doon mais ci xool sa bopp ci génération léegi nga xam ne kii da nga koy xool xam ne am am di njëg la te koo jàppale ci làmb mën na dem ban bër la. Boy Niang Boy Niang daal suma rakk la suma doom la parce que su amoon combat sax Boy Niang seen combat mi njëkk yëpp dama doon takkandoo moom ngemb fii si maire bi parce que ñun bu njëkk ba avantage bi ñu amoon mooy bokkuñu woon ay écrits ku si amoon combat ñun dañ daan génn dem jàppalante ji. tey ji Eumeu Sène nekkul woon bul faale mais bu amee combat ñun waa bul faale dañuy buubu dem bëri jéeg moom tey jeunes si ñoom bul faale mais bu amee combat ñoo ko booy ñaar combat mi ndaw yëpp ñun ñoo ko jàppale fii waaw non entraînement doo ko yóbbu mais daanaka un mois wala deux mois yéen ñeene mbokk nekk di contact ñun loolu lañ daan dimbalantee mais léegi làmb moo fiir làmb moo jógee si léegi amateur dem si fan si club dootoo ñeme mbër wi cent pour moo waral léegi mbër moo minul cent pour cent rek da ngay daal di am limite ci moom mais bu njëkk ba loolu amul woon làmb amateur la woon ak affaire écrit mbër yi bokk dëkkwaay yëpp ku dañuy yéenante jàmm ku si am combat ñëpp ñëw jàppale la bëri la mais léegi soo ko defee ñu tam la moo ragal moo tax ñu bari di ragal. mais mais tey damay duggaat ci bul faale li tax mu tas ndax Eumeu Sène a fa jógee coow li bari digganteem ak Tyson bul faale tas yàqu lu waral loolu. non bul faale moom. tasul. ah bul faale tas na kat grand am di ñu gën a bul faale ban bërëb fa nekkati buy toj. waaw da may déglu bul faale euh, lañ ko créé suma ma juumul deux mille quinze la activité yëpp arrêté parce que dañ doon ànd bi ñuy ànd làmb moo ñu boole woon làmb jooju moo jeex nit ñu dañuy ku nekk day nekkaat sa yitte. mais du tas. mais est-ce que bu làmb jeexee du ñu créewaat beneen champion ci biir équipe bi looloo waral équipe bi dem ndax Mbaye Gueye fa moo ne woon Fass. bi làmb jeexee dañoo créé Moustapha Gueye. andi a ngi dem. ana nekkoon. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen lan moo tax mënul woon a créer beneen champion te pare dañ xale yi ci làmb bi ñu doon wax naan faale bu génnee génération xale. maanaam bi fa Tyson nekkee xale boo xam ne moo nekkoon ci ginnaaw Tyson comme ni Fass amoon ay leneen amoon lu waral loolu loolu. non foofu du woon si ànd ak yow parce que xamul tax boo nee bu Tyson jeexalee créé un champion non créé nañ champion. ban champion Eumeu Sène parce que xamul tax Eumeu bi muy ñëw bul faale. muñ si kàmb gi dafa teg la ñaari défaite. su ma juumul. Eumeu Sène koroog ñun waa bul faale bi ñu ko utalee combat. amateur yëpp dañ ne dañoo bëgg a yàq carrière parce que dafa ñëw ñu dalal ko si Simel fay ñu ne waa Boul Fall dañoo bëgg a yàq carrière am yàlla génne ko si ñu jógee foofu jox ko Souley Top. kan moo dóor. Souley Top non non non Souley Top non ñun xam nga làmb làmb dafa am un plus un égale deux combat Eumeu Sène ak Souley Top dañ ko damyee pièce par pièce parce que Souley Top dafa am série de trois coups. dalay jëm gauche gauche si biir gauche gauche yooyu dafa bëgg nga remise ko gauche pour mu yoon la droite moo tax ñu ne Eumeu Sène saay bu saay bu jëmee gauche am da ngay wu soog a ñemee jëm gauche saay bu la jamee gauche boo taxawee boo fayoo foofu da lay yéeg droite soo xoolee combat bi Eumeu Sène bëri na ko ba combat bi jeex droite su lay toog dóorul droite te ji mooy jël bi Eumeu Sène combat bi mu gën a dant fournir si doole sonn si parce que liñ ko bëree loo juste moom la bëree. lamb ñu dañoo tolloon foofu parce que yàlla daf ñu joxoon benn waay joo xam ne dem si yàlla si biir ñu koy woowee liiru jaan kooku dafa yàlla da ko mayoon xam-xamu bëree dañuy day toog bëree mu jàngal si comme ni ñuy jàngalee si école moo suñ combat yu bari dafa daan facile parce que moom tey jii boo ko dégloo rek combat am da lay parce que lamb moo toll fa affaire gën nga affaire gaynde mbër am na combat xam bu ñëwee day doon ragal pour am ndam. mbër mi am na combat bu la ngay ñëw pour doon gaynde pour doon am ndam parce que système de jeu ñoo du bokk da parce que dafa am ay mbër yoo xam yéen ñaar seen bëre du déggoo mbër moom nag seen bëre déggoowul da ngay jéem a éliminer làmbam ba système am pour imposer ce système mais làmb du affaire guerrier la parce que bëre xel la xel boobu nag da koy jariñoo mbër soo dee bëre moom dangay ngay fexe éliminer fort am pour mën koo imposer sa fort te bil dem si yàlla si loolu la ñu daan jàngal bañ mokkal si. mais grand bi bi bi ñu bi loolu dafa bul faale kër yeewee ama seen ama seen sax yàggaatul bul faale mu génn bul faale ndax bi fa commencé bëreeg ay Balla Gaye bëre faa commencé dugg ci biir xaalis bi dafa dafa wan bul faale ginnaaw maanaam nekkatu fa te na ay booy yoo xam te ni peut-être li nekkoon ci bëre ama seen moo nekkoon ci ñoom ay Valdo ay Aliou Mané mais bul faale lu tax mu tas nii nii nii nii nii ba pare ay problème yu amaat bul faale. non bul ne ama yàggul bul faale Eumeu Sène daanaka li ëpp bul faal la ko biir. non bi mu commencé dégg daal yi. bu bul faal la dégg daal yi. mais dégg daal ci biir xaalis bi la génne bul faale. non grand bul faale moom fa la Eumeu Sène parce que Eumeu bi muy ñëw. bi muy ñëw menu mbër moo xam ne nii tey ji mi ngi au top. yaa ngi ko xamee si Kayre. ak Ouza. ñooñu la bëre te nekkul bul faale. mais bi mu ñëwee si la si lay topp si mel fay. Xaadim Njaay Tafa Gueye Balla Gueye Gris Bordeaux Mbaye Diouf mais grand bu ama seen bëréewul loolu bul faala ama seen bul faala loolu foofu yëpp bul faal la ko bëree bul faal ko bëree kon amoon na xam-xamu bëree bi muy ñëw bul faale indi na mën bëreem mais nit mën na bëree te bënul ci làmb